doom ja moo faatu ci biir doomu yaay doom ja doom ja moo faatu ci biir doomu doom ja wala boobu miinoo ko de. boobu ñu ngi am mbégte ak euh, contentement bu baax yéen ñi nga xamante ni yéen ñi seetaan euh, ci seen écran la TMP Events TV tey nag ñu ngi fii nga xamante ne nii moom mooy fii ci euh, Dakar poste Thiaroye waaye soo leen ma gisee war ngeen a xam ne tey damaa ñëw indil leen koo xamante ne nii suñu lépp la muy suñu papa di suñu maam di yëngu ci wàllum faj ñu gën ko xam ci Serigne Bass. Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul kenn dootu ko présenté ci Sénégal rawatina ci dëkk bi nga xamante ni fii la ñu nekk euh, di euh, Dakar Serigne Bassirou Ndiaye euh, xéwal bari bokkul di yëngu ci wàllu faj mën ko lool macha allah te dëkk bii ñu nekk xam ngeen ni nit ñi dañuy jaaxle lool waaye tamit nit ñi dañuy daw guddeeg bëccëg subaa ngoon di wut li ñu yóbbu seen kër waaye boole ceeg ay jafe-jafe Serigne Bassirou Ndiaye mi ngi fi ci jafe-jafe yooyu fas yéene ànd ak yéen ba lépp loo xamante ni liñ ci war a def la. ba ngeen delluwaat ci seen sago Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul ci loolu noonu lay dox kon jaax jaaxle jeex na yéen mbokk yéen ñi nga xamante ni nii yéen a nekk ci réew mi di yëngu ci wàllum feebar yooyu noonu Euh, Sëriñ Bassirou Ndiaye euh, xéwal bari bokkul euh, soo ko soxlaa mën nga ñëw ci adresse yi ma lay limal nii da ñëw dakaar ci poste Thiaroye boo ñëwee di nga ko fekk wala nga dem fi nga xamante ni moom mooy ca Thiès wala yow mi nekk Mbour Sëriñ Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul mi ngi foofu waaye tamit yéen ñi nga xam ne féetee ci wàllum Touba jàpp Kaolack Sëriñ Bassirou Ndiaye mu ngi ci région yooyu nga xamante ne nii mi ngi fii ci Sénégal liggéey bi tamit yaatu fépp nit ñi wóolu ko kon ñàkk koo woo loolu ba tax na mën nga ko woo sax ci numéro yi ma lay jox 78 140 99 08 wala nga woo ko ci 76 391 74 63 Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul nee naa leen euh, ñàkk ko woo wóorul kenn dootu ko présenté ci euh, Sénégal muy yëngu ci wàllum faj mën ko lool macha allah di ko ñaan mu gudd fan. Euh, Serigne Bassirou Ndiaye xéwal ñu ngi lay bàyyi nga nuyu ak askan wi nga xam ne ñu ngi lay seetaan ci seen. auzu billaahi min seytaan rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin basir nuyoo bi nag ñu ngi ciy jiital Sëriñ Muntaxa Basiiru Mbàkke di ci tegaat Sëriñ Musaa Mbàkke naawel di ci tegaat Sëriñ Muhammadu Abdullaahi Mbàkke mooy sama péetam si Tuubaa waaye nag ma bokk Sëriñ Basiiru teg waaye Sëriñ Moodu jëlam si ku jokk mooy suñu sëriñ kon jërëjëf ci biir nuyoo bi ndax dañ ko ci sagoo ndax tolluwaay dina am boo xam ne ñun murit lañ gën a miin mooy li ëpp doole ci jëmi doomu aadama mm-hmm. bu dee dëgg ci lu wér ci lu wér ci nun dañ koy joxaat ku baax ci nu yar ndax wolof dañoo wax ne kenn neetul ku la yar kenn astafurlaa kenn deetul ku la jur mm-hmm. dañ naan ku la yar rek mm-hmm. ndax ku la yar daanaka yi ëpp moo koy def ci yow ba tax na am na jëmm yoo xam ne boo ko xasee yëkkati kàllaamam rek wér ngaa wéroo dootu ko jar kon yar dafay lu solo. dafay lu am solo. am na jëmm yoo xam ne boo yëkkatee kàllaama tudd ko rek doy na sëkk lépp ci ci am ci ci xam. waaye nag du ma ko wax ci lëndëm. waaye ci xam laa ko waxee. dafa am loo xam ne waxu lëndëm la. waaye daa am loo xam ne ci xam lañ koy wax. ci xam lañ koy wax ci xam lañ koy wax. waaye kenn du ko wax ci lëndëm. kon bu ñu nee cosaan sama cosaan man ginnaaw sëriñ bi na ma joxoon ci laay ubbee man. su ma ubbee ci ku baax ki ba noppi nag wëlbati ku ñëwaat nag ci mbaa jam ni njëg yo moom sere o fogole mm. mexe sim naa nun a paax to gin maa nun a paax to an naa e mi mene to nun rek ko taxum def mene mm. oxu nan na te ka bëggoon a gar deetin ndax roog ku refeer na mee xa'a ku na mee iyo nene roog a biita xam inchallah min noddi pullo min noddi séréer min noddi yimbe fof yo ak ci ala jag kala mi rek ko wonani kam si siwananaani kam mi haalantama fi allah simi haalay fi allah way mi haalani fi neɗɗo ala si allah jaaɓi ko si jaaɓi ko ni si jaɓani ko ni haalugolam koye yonan hmm. it ëttu nofruma jonnam nana mi haalay ha mi acca mi haalata ko haalanta gona gonga ala ala simi haali ko gonga rek on ɗo waye mi haala ha mi para wi ala ala o wawata he si allah jaaɓi kon koy inchallah kam laye kam bugo fi cosan to ku um laya fayim oxa fatinna fa layes waye andami jekkiro ka tegona me to ru kene garna koy wagiro teg rakas xano xaƴ me fa layes ndax roog kene buguma ñaaƴe yaasa roga damta in te inchallah incha allah jërëjëf jërëjëf euh, Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul euh, gis ngeen ko noonu la nuyoo waaye sëñ bi ba léegi tàmbaleegu ma dafa am nu mu la bëgg laaj euh, yow ñëpp la moo xam séeréer moo xam joolaa la moo xam ku mu mën a doon mais ñëpp la sopp waa xeet bu ne sopp na la tamit lan moo indi loolu. waaw ba tey foofu yi dama lay bëgg wax ne dama lay bëgg a baare. Hmm. waaw ñëpp la bëgg day jafe. Hmm. di nga naan li ëpp ci nit ñi da am nañ ci yow yëg-yëg. waaw mais dégg-dégg la rek sëñ bi. ba tey yow laa ci dimbale. Uh-huh. waaw uh-huh. di ma laa ci dimbale damay bañ nga jàpp ni ñëpp ma war a bëgg. Hmm. du yoon. waaw ah, mais dégg-dégg la rek. wolof xam nga yonent bi sax ñëpp bëgguñu ko. nangu naa de waaye hmm. wolof mooy waxe noonu. yow ni nga waxe wolof sañ na koo waxe hmm. waaye ñun saalum saalum hmm. du ñuy waxe noonu. danga naan ma yow de man am naa ci yow cofeel gu wér. benn gis naa nit ñi di wax ci yow lu wér. ma kontaan ca kon jàpp naa ne ñëpp la bëgg. kese su boobaa da ngay noppalu. waaye ma ne su ma yëkkati ko fii ne la maa ñëpp a ma bëgg. day diis. yàlla euh, mooy ki nga xam ne. mooy jël jëmm doomu aadama saf mu jël muy saf saf doomu aadama yi. dëgg la nag samay kàllaama moom ku ma bëggutit bëgg samay kàddu moom. ndax dinaa ko teg fu wér. su may waxee yow duma ci seet kenn ku suñ suñu borom teg ko fi. te lu may waxit soo ko bëggee dindi du deñ ndax doo am loo fi teg. secret bi daal mooy da ngaa dugg. waaw kooku moom yàlla dimbalee na ma ko. dëgg la fu ne daal moom. ak fayda ji moom bëgg naa nu bokk am ko. Mm. ci ñun ñi nga xam ne ñooy def ñaa mm. teg talukaay bi. Mm. ñu ñu ciy nekk di sëriñ di ñaan hmm. nañ am fulla ci suñu bopp ci liggéey bi te wéral ko ndax ñu ko ñu ko seqal jërëjëf sëriñ Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul waaye tàmbale duñu woon waaye tàmbale nañu ah, sëriñ Bassirou Ndiaye euh, xéwal bari bokkul wax naa leen sànq boo leen ko ci dëkk yi ngeen ko war a fekk wala numéro yi ngeen koy woo mi ngi noonu affiché wu ci seen euh, baaw écran euh, ba tey day faj nag wàllum rab yéen ñi nga xamante ne nii rab da leen sonal tey sonal leen loolu dugg ci yéen ba yàqal leen lu bari bari teg leen ay gàllankoor sëriñ boo leen ñëwee incha kàttanu yàlla euh, di ngeen ci am euh, tan waaye tamit moo xam yow mi bëgg jëkkër wala nga bëgg soxna ak fu waaye mën a nekk Serigne Bassirou njaay loolu it euh, mën na ko lool yàlla dimbalee na ko Serigne Bassirou Ndiaye moom it wàllum émori tamit mën na ko lool te macha allah moo xam yow it nga xam da nga yëngu ci wàllum njaay moo xam tamit voilà nga nekk ci milieu boo xam ne da ngaa soxla bayre ubbeeku Serigne Bassirou Ndiaye moom tamit mën na ko lool wala nga néew kàttan boo néewee kàttan tamit ci wàllum sëy moo xam góor wala jigéen Serigne Bassirou Ndiaye Euh, da koy euh, faj wala nga am ndiggu luy metti wala tànku luy metti euh, Serigne Bassirou Ndiaye ñëwal ci moom jabet wala ndoxum siti nga xamante ni moo lëmbee jamono ji sonal ñëpp Serigne Bassirou Ndiaye da koy faj kon mun ngeen a ñëw tamit ci moom moo xam tamit nga am lakk-lakk wala bopp bi metti wala nga am li nga xamante ni wala ma wala nga doon jigéen ju wër la ah, yooyu yëpp tamit Serigne Bassirou Ndiaye yàlla may na ko ah, ba tax na yooyu yëpp ah, da koy faj kon woone ko ci numéro yooyu wala ngeen ñëw ci adresse yooyu nga xamante mi ngi ci ban ko defee ngeen tàmbali waxtaan waaye tey fi may tàmbali Serigne Bassirou Ndiaye damaa bëgg ñu dem fi xamante moom mooy bitim réew suñu mbokk yi nga xam ñoo nekk bitim réew moo xam góor wala jigéen moo xam suñu yaay la wala suñuy mag wala suñuy nijaay dañ fa lekk di yëngu ñu am ay yëngu-yëngu waaye jamono ji ñu seetlu ne liggéey bi metti na trop ci ñoom jamono jii ñu gis ne liggéey bi demeetul noonu euh, bërëb liggéeykaay ya ñuy nekk sax dañ fay liggéey ba benn mois sax ñu jëlee leen fa ba tey ñoom xamuñu sax lan moo war a leen mel en tout cas ci tënk sax ñu ngi dund daal ay jafe-jafe yu mettee métti suñu mboq yi nga xam ñoom ñoo nekk ci bitim réew Serigne Bassirou Ndiaye lan mooy saafara bi. saafara bi de xëy na du ma ko mën a génnee lépp daal. Mm-hmm. waaye xëy na sañ naa cee génnee ni ma ko xamee. Mm-hmm. sañ cee génnee ni ma ko xamee. Mm-hmm. ndax ci carton sun borom dama bëgg lepp lu may yëkkati ci kàllaama diko wax rek mu nekk ci man ndax sun borom dafa def bitim rew ñoom dañu ne ci xat-xat li nga wax yalla tax nga wax ko mhm. buñ koy wax buñ la laataan lañ ko nangu loolu moom xawma dañ nangu émission bi waawu war a waaye bi nga laataan daaneel moom lañ wax ni dëgg la te loolu yaakaar na fii sax ci la bokk ndax li ko yokk tëj gi ñu tëj doomu aadama yi li ko gën a yokk loolu ci la bokk tëju googu nag bu tàmbeek nag yow mënoo am foo jëm ba nga ko amee mënoo wan a am dara teg ci kon fooy jëm fooy jëm ah, kon amatuñ jëmu kon lan la nañ seet yoon yoon bi lan ndax dañoo wax ne taal bu te tàkk dañ koy xam ba wet gu nekk du waxu gone nag mag a ko moom loolu taal bu te tàkk wet gu nekk lañ koy xambee dañoo wax ne ñàcca bitim réew bari na ñoo xam ne daanaka lu ñu yaakaar ci li ëpp rek dafay tas loolu moom boo nee bitim réew da nga rek waaye du bitim rek fépp la. tey damaa bëgg waxtaan bi ba tey ba tey la dëkk bi tey ñëpp la. Mm. ndax ubu tëju moom fépp la umu fépp la. ndax rab yi ne fii mooy rab ya foofa nit ñi ne fii ba tey ñoo nekk fii lii rek moo fi nekk li ci tege nag mooy ñun ñuy def tegtal yi nañ am ngëm-ngëm ci li ñuy def ndax wëlóoru boo koy seet bu ne poids da nga koy jox ak xam bu ko defee ki koy jël jël ko ak su ko defee suñu borom mën nañu cee dimbale ndax fi mu toll nii bari na nit koo xam ne tey mën naa am soxnaam sax mu mel ci noo moom noo xam ne moom a koy gën a xamal mi koy bëgg a wax day am benn bis mu koy xëy rek ñu ñu daal di mën a am jafe-jafe ca foofa ndax ba mu koy jëlee fii di ko yóbbu neexoon na ko neex ko muy ñaari neex-neex. ñaari neex-neex. ñaari neex bi mm-hmm. ci kër gi neex bi yow ma koy yóbbu. waaye dem ngeen ba yegg foofa daanaka na ngeen war a doon doxee wala na ngeen doon doxee ay am te lu manqué am na ñi nga xam ne sax du manqué waaye soxna sa mooy doxee waat neneen lu bokkut ak li nga xam ne moom lañ ko yóbboo woon toujours leen di wax ne ku am jafe bu mel noonu na borom yow ñu lijjanti diggante booba bu rek nekkaat ban mën a nekk ndax jàmm mën a am ndax itam ànd ak nit ba noppi ngeen di liggéey ga xëy xëy wan ko gannaaw duggi ci leneen wala nga àndee coopéré kooka metti na ma ne fu ngeen ko fa fekk rek na ñëw am nañ ci tegtal. am nañ ci tegtal waaye sëñ bi sëñ bi dañoo gis ne. Euh, ma wax la ne. Mhm, mhm. ñi nga xam ne dañoo tëju comme ni nga ko waxee tëju gu métti gi. Mhm. ma wax la ne dafa am ubbeekaay bi nga xam ne dafay ànd ak kaaraange. jàngat lay doon képp ku la bëgg rek day day boppam ndax lam lay def moo war na jëlee kooka foofa yooyu lam lay def mooy këpp wat ci kawam ba lam doon def dem ci kawam. boobu baat bu am solo la ci créé ci Sénégal bu am solo la créé bitim réew am na bayre bu ñuy liggéey boo xam ne ci kër gi lañ koy def. kër gi mu kër gi nga dëkk. Ah. lañ koy def mu topp la foo demee bitim réew mu ànd ak yow ngeen di liggéey sa kër dina ko dana am mbooloo te dana am dana am dana am loolu dana jox. su boobaa dafa amaat yeneen soxe fetal yu nekk ci biir kër gi yoo xam ne dañ koy def ci kër. loola ba tey boo ko amee mooy mooy miire kër nga xam ne amul sànni amul ronu amul téen amul dugal déedéet lu ñëw rek beleen la. moom moo koy aar mooy. aar kër gi beleen la. Ah, dara du la mënal dara dara du la mënal nga xam ne jàmm rek. Mhm. ci kàttanu yàlla incha allah. kàttanu kon ubbeeku. Mhm. day am waaye ubbeeku bu mënee am na ànd ak kaaraange. ndax li may wax man dama ko am fu ma koy teg fu leer ci ku koy déggee tu am dégg-dégg xam ne lu wér la taxoo taxoo may wax damay wax jox nit ñi na leen neex ñu téye na leen neex na leen naqar ñu toj ko sama yoon wu ci. mais leeral lan mooy waral yaakaar bu tas si doomu aadama. yaakaar ju tas li koy waral ci doomu aadama man yàlla laa cay jiital ba noppi ñu doon seet lu ñuy wax yàlla. nañ ko ca jiital. ndax dox ba dégg naa ba mu ñëwee ñu ne ko yow de def fa mel ni suñu bàyyi diwa ko kenn ko ne ni ni diw nangam hmm. bi ñu laajee dof ba mu ne leen man damaa ci xalaat ba ñu ne ah mu ne ah kay mu ne yow looy xalaat mu ne man dama xalaat mooy sama bàyyi la ko fi jëlee yi yàlla jugu ci dégg wax bi hmm. mu ne leen suñu bàyyi liy wértu wóor de mooy li ko fi jëlee moom loxo yàlla jugu ci xam déet kon wërsëg wu yokk ak wu gàtt lépp a ngi aju ci yàlla hmm. mooy def waaye nag dañu ne yàlla yàlla bay sa tool o seereer a leye roog roog o mat o fañin fañ fañ fañ ta wàcca caa ah o fañin fañ fañ fañ ta wàcca caa mu ne mu taw ci toolu ngóor taw ci sa biir tool nga ne yaay am te ngóor du am foo koy teg nee na loo ko bañ bañ bañ rek yàlla tawal ko taw boobee nag bu amee nag na ñëpp dem mbéy mbéy mi nag fépp mbéy dafa am dafa yaatu wet gu ne ngay béyee ndax lii may def rek man mbéy la ci man ndax ci laay am sama li may suturloo lii ngay ñëw di wax ak man ba tey mbay la ndax ci ngay suturloo mbaykat hmm. bi loolu la am ci hmm. lay suturloo waaye nag na wér wér gi mooy boo jiyee ba noppi top ca di ko defaraat ba mu rafet ba mat a diqi nga diqi ko mën koo jariñoo hmm. waaye nag ji ko rek bàyyi ko fa dem sa yoon fàtte ko fa neexut sëñ Bass mais ñoom ñi nekk bitim réew xam naa ne sax même ñu nekk fii dina ko jëfandikoo waaye ñi nekk bitim réew tey boo doon jëflante ak ñoom yow looy wut yónnee leen ko wala ci téléphone rek ngay mën a jëflante ak ñoom wala nan ngay doxalee. téléphone bi xam nga yow ginnaaw yow yaa ma yóbbu bitim réew. di koy xam nga ne loola mat na yow matal nga ko di. waaw mais amul sax ndax lii ngay def man. Hmm. boo noppee yaa ko sànni ci picc mi picc mi yóbbu ko ca kaw. Hmm. bu ko fa yóbboo ma tasaaroo kenn ku ne jot ca. Hmm. lañ koy nabba nabbee nag di xool. ci lañuy am benn waaye bu am xelaat rek ne ci yu mais yéen seen liggéey bokkul ak man sama liggéey ah kay déet yow yow ni ngeen di liggéey yéen ak bagage yi nga xamante yéen ngeen yor def ay ñaan ak yu demee noonu ay sangat ak yooyu nan la koy sangoo bu fekkee doon ne yàlla dogal ne ak yow ndax fi mu ne nii kenn mënta mënumaa bàyyi la ndax yaay wax di ma jox may wax di la jox kon ci biir joxalante bi ñuy joxalante ci li ñuy am yéene li ñuy dox ñu dox ko ci biir joxalante kon ku nekk fee nag mënoo leen jëflante yéen ña mm, ah bu mënta am du baax de CP de loo ko dégg kon mooy di nga wax rek dañoo wuute ay doxin waaye CP boo déggee nuy wax CP ñoo tax CP mooy ñii ñoo jël liggéey say ne CP rek waaw boo ko déggee ku nekk jigéen ñi ak góor ñi ñëpp a koy def waaw jamono dañuy dem ci avion bi mm-hmm. di dem ndakaar di dem dem dem bitim réew mm-hmm. di dem Italie ñii di dem France ka nekk France na jokkoo ak kon daal mën ngeen a benn la ca tegewaat mooy soo bëggee lu gën a gaaw defal CPE. waaye boo bëggee ne dangaa war a jot rek na jot. defal banque poste. foo ko poste léegi la rek CPE am waaye post la woon. ndax am na ñoo xam ne seen yëf buñ sañoon ñoom rek kenn du ci jot. waaye am na ñoo xam ne ñu woo seen bokk ñu ñëw fi jël ci ko waaye ku ñëwul dafa diis. man damaa damaa résiste. ñun séeréer lañ dañuy foog. ba xam-xam sax su ma ko doon jàng du ma dem di ko jàng sama biir bopp damay génn ndax mooy yoon. xam-xam dëgg-dëgg boo ko bëggee da koy ñaq. looy toog rek mu fekk. waaw moo tax man leen xam dëgg mu ngi fii bari ba kut soo ko déggee mooy lii. Mhm. bopp bari nañ waaye du ñu benn. dëgg la. nit ki buy wax xam la muy wax fa mu ko teg bu dee jëflante ak yow la muy jëflante nga xam ni ñu koy defee. Ah, kon yow daal su ma la dégloo Serigne Bass. yow jot nga pour jëflanteeg ñëpp ak fu waay mën a nekk. incha allah ci kàttanu loolu moom fekk nga sax may jëflanteeg ñëpp. Mm-hmm. ndax fii ba Italie ba France ñu ngi may xam. Mm-hmm. ku ma seetaan noonu. ndax ginnaaw ka nga xam ne mooy ngay jël xaalis yóbbu ko ca ka koy yónnee mu ne leen sëñ mii de ku ma xam la kon mel na ni maa ngay dox foofa. Mm-hmm. te am na ku ma wax ca bitim réew moo ma wax de na ko topp ay waxam. nee na ba ma demee fa ma doon dugale xaalis ba de dañ ne ma sëriñ bii de miin ah, yow moom kenn dootul miinu baaxel baaxal lañ war a miin waaye miin wax nii te dara du fa nekk neexut loolu baax ci loolu sax nag laa duggee euh, ñu gis ne suñu mbokk yi nekk fële dañuy daan seen doole di daw guddeeg bëccëg suba ngoon waaye bari na ñuy jëflanteeg ay sëriñ moo xam fii wala feneen fu mu mën a nekk waaye duñ ci am lu leen di neex te yéen wàllum fañ leen di yëngu est-ce que yoon la euh, ngeen di jëflante ak nit di ko wax wala di ko di ko defal loo xam ne sax yow mi koy def xam nga ne kii li ma koy defal nii dama koy nax nax laa ci jublu euh, sëriñ Bass Ba bokkoo si ñooñu waaw loolu sax moom du ma mën a tontu ne bokkuma ca ndax man moom ma sama bopp damay liggéey rek jox ni ñoo may tontu liñ may wax daal bu dee nekk na ci man bu dee li may wax daal nekk na ci ñoom ña may tontu wér na kontaan nañ ndax xam naa ne ñaari baat ñaari baat yi jëm ñett daanaka ko dégg ko nekk mën na koo feere jigéen yu bari ñu ngi ëmb di am doom di nelaw maa leen ko defal. te fu ma ko yëkkatee sama loxo lu ma gis ko ko wàccee. am doom di nelaw mooy jigéen ji ëmb bëgg am doom mu yomb. dara de su dul opéré woo ma ma ñëw teye bu ci bakkan desee mën naa ko joxe waate ko nga takkal ko ko rek seet fi mu toog jàmm rek appareil benn bon la mën a këppati booy xam ci yow foo toll ci ëmb sax amul. nit ñoo ñu nga xam dañ leen def nii sax du la xam ci yow dara loolu li tax ñuy wax bari bokkut. loolu ci la bokk. ci loolu la bokk. ci <coughs> nga xam ne. ñaata laaj nga laajoon foofu sax nga ne. man maa ngi laaj naan eh, ñi nga xam dañuy jëflante suñu mbokk. dégg nga sëriñ si ba tey. Mm-hmm. Mm-hmm. jëflante googu li may gën a metti loolu ci la bokk. ndax man sama émission boo gis damay dal ci suñu bopp ci sama bopp sama bopp laay dal de du ma dal ci nit ndax man aw ma jotu doomu aadama sama liggéey rek laa moo ma ñor mm-hmm. waaye sañ naa ne nun niy liggéey ci liggéey bi lañu wéral te yàlla tax. kii ñaan lu nag na am fu la ci toll nii lépp looy jox doomu aadama gisoo ca loo xam di ko topp rek di jël seef di ca sotti ba muy at dama koy aaye ndax nit ñëw na ba ci man ne ma am naa at ci diw am na at ci nangam am naa nangam ñaare nangam weer ma ne ko du yoon ñaan moom ba bari ci kentane man damaa wax ne posen ak ñaan ñoo war a yem képp ku lekk posen sam xel dee rek waaye dootoo xalaat dund moom déedéet mënta nekk laajal ko wóoru kooku man maa la ko wax. mais est-ce que tamit nekkul na yow xam nga yaa ngi koy wax léegi kooku di dem ci sëriñ bi rek te moom mënu faa am tam waaye mi ngi continuer dafa dem yéen sëñ bi est-ce tamit yéen doo leen sax euh, dëj nit ki sax ci yéen sax muy ñëw rek di ñëw rek comme yor na koppar voilà di leen indil fekk ne yéen li muy ñëw sax yéen mënu leen ko faj sëñ Bass waaw góor a waay ba tey. ah waaw. <laughs> bëgg maa wax loolu tey xam naa te man bëgguma di wax. tey dama bëgg ñu ñu waxtaan. ndax bitim réew la ñu jëm. te sama mbokk yi ñu ngi may seetaan. da nga naan réew mi fa lañ jëm réew mi àdduna ñuy waxal ngay wax. da nga naan tey hmm. àdduna la ñuy waxal àdduna la ñuy waxal waaw. te bëgg naa ñu am dégg. waaw tey nga dégg-dégg. waaw loolu laa bëgg. est-ce que nekkul da ngeen di. foofu euh, mën nañoo bañ a dij nit ñi waaye dij lay doon ndax mbooloo soo ko barilee da nga naan ñi ñëpp jëlal baat boobu de mbooloo boo leen dajalee kër gi fees dell guddi ak bëccëg bañ di taal ay mbana di ko togg di joxe kon de nga naan fii xam-xam a ngi fi te moonte bari na de foo xam ne yéen nii ñaanu laay waxal nag waxuma ak ñu ñi nga xam ne ñoo toog fii di wax déedéet ñii ñaanu laay wax am na ci ñoo xam ne tey dangay dem dang suba ba ngoon doo gis sëriñ ba ba ci ñaari fan nga door koo gis te bi léegi doo fa jële loo xam bi léegi laa la wax amaa am sa bayre ñëw toog di liggéey dafa bokkut ak xam-xamu maam bopp tey kon ci bari bokk ci xam-xam fii day nekk waaye du caaginu dangay ñëw topp nit ngir koom topp nit ngir mbumbaay topp nit ngir dëgg nag moo ko dàq lépp te ku ko mën ci dëgg googu lañ war a dox foofu laay woote may wax nit ñi ne ne bala war a neex dégg dëgg rek ñu tëgg làmb joo xam ne dañ naa ne ñëpp ñëw tege ñi mën ñu tok benn bis ñepp tok ni ñaanu tok ñu seet fiñ mo ma ni bala ngeen duggu xana dañ leen di fuyee amul yor dara. am bu nu la neexee rek. amul yor lenn. am ah, mën naa am sax nga nga mëna a yor dara. Mhm. waaye kenn ku ne fa nga tok rek na fexeel ba ka nga ka nga jóg lan jëflanteel moom mu gis lu leer. fi nga tok la wax. ba dama ne lan bu nu amoon lolu loolu mooy neex. Ah, ñu tek client yépp ci kanam. bu loolu amoon ñun ñëpp di bokk tok ba yow di nga ñëmé bu lolu amoon. man mi koy waté ni kay moo ko ragalee du ko japp man mi koy woote su ma ko ragaloon du ko jar dégg nga ko foofu la affaire bi nekk mbir mi mbóot la amaa nag xam-xam ak amaa bayre du ñu bokk àdduna nag boo ko seetloo dëgg du yem ak dara ci waxtu wu nekk dëgg du mën a yomb déedéet la ca def nag moom kan macha allah waaye nag bis a ngi ñëw boo xam ne ku nekk du jaas kenn du jaas ci man du ñax ci keneen <coughs> muy yomal xiyaam ñaankat ñu ñaan lu ñaan lukat laay wax day man ñaankat laa kon ñaan lukat yu bëri ñu ngi naan diw lekk na ma lekku la waaye ah, lekku la fii la la lekk waaye lekku la fan jëm ah, waaw mais xam nga tamit mbiru àdduna tamit xam nga ba tey rek denc la denc la pour suba hmm. yow laay jàppale ne ñun dañuy yaakaar ne ñuy joxe loola dañuy jàpp ne deedu am te mënta ñàkk ah, te bu bisu kerookee ngay xam ne li lu wér rek moo gën bitim réew googu am na ku ma wax ne ma junni la ma yónnee lañ ko yónnee kese mënatula wax ak kooka xoolam junni benn junni daa jar yàqtu benn junni fii ba bitim réew matul sax sëlmu matul ndékki matul dara dana jar bañ a wuyu mooy ku xamut tu ŋàppaaral buñ baa ŋàppaaral rek danañ dem waaye ŋàppa eh, ŋàppaaral moo yàq ah, euh, am na sëriñ soo xam ne tey benn ci man sax laay wax ndax mu gën a neex su ma la diggoon foo ma diggoon xaalis dootuma la bàyyee woo téléphone bët bu set ma dina woo naa kañ nga koy indi maay wax ak yéen nii nag ëllëgati ci biir ku ko ci dégg dana ma tontu ndax soññ naa kenn ci jox ma léegi dafa mel ni sax yéen boo leen di faj léegi xaalis bi ngeen gën a teg bët déedéet da nga naan ñooña ñu ma waaw waaw damay boole ñëpp rek ñu ma ñax waaw waaw dafa mel ni xaalis bi la gën a teg bët soxla gi ca ñooña est-ce que tamit yéen doo leen dem sax si soxla si ngeen bàyyi xaalis bi ba xaalis bi ñëw après waaw xam nga xaalis moom ñaari lu taxaw rek moo ko taxawal ndax premier lii may jëflante yow fi mu ne nii ma joxewu dara du moom ko am am déet te dinaa la fay ma la fay du sotti kon ci ñoom lañ koy jëlee dugalaat ko ci yéen. waaw mais ñu bàyyi xel laa wax ma <coughs> neel waaw rek ñu dem. waaw ah, boo ma yàqalee foofa du neex. <coughs> kon da nga maa laaj ne ma defal ma nang damaa bëgg nga lay fal ñu defalante nangam ñu waxtaan ca ba déggoo ca dama ca am na lu ma ca war dama cee góorgóorlu yéen nga góorgóorlu ci la war ndax mu mën a dem ci nit ñi nit ñi mën ko am déggam <coughs> foofu yéen da ngeen cee war a am tuyaaba ndax lan mooy tuyaaba ji yëkkati nga kàllaama digle dara ca ngay ca ngaay boo ko diglee boo ci amul dara boo ci amul boo ci setutit da nga ci am yàlla ndax nii nga ñëwee wax ak ma wax ak yow wax ji ñor doomu aadama yi ba mu jëre leen jóg di ma seet ci loolee tem-tem ban ca am suñu borom def njëriñ juddu ca doo ca perte kon li gàtt mooy li baaxut waaye li gudd mooy li sakkan to kon yàlla na nu yàlla sakkanalal yal na nu yàlla wéralal ca la ñuy def ak la ñuy wax toom ne ci noonu waaye wax loo xam ne gëmoo ko daal moom toujours maa ngi koy aay ñun. Ah war nga ci àddu war baax te nag comme ñaankat nga lan ngay ban ñu koy def. xam nga itam du ma ko laaj jamono nañ ko nañ gëm suñu bopp kooku doy na sëkk ndax koo joxoñ ngeen songoo te yaa tooñ bul joxoñ da nga naan général mhm. nañ fas yéene dëggu ci liñ ne mhm. waaye yor say bàyyi rek nit ñi da fekk ci bàyyi rek kese mhm. daa bokkut ak liggéey <coughs> doomu aadama boo ko indi taal amaa xam-xam dëgg-dëgg ak loo xam ne pratique ak pratique lañ koy xawma loo xam ne ngaa ji jëngi aw këyit bind ko ba mot théorie nga diko wax ci nit ñi man nañu dem ba lepp ngi gëm la lool sax ci say wax ak say da nga dégg mm. waaye en tant que loola ak paj du ben lool tubaab yi jang ñepp man nañ ko mm. théorie mm. pour wax nit li ci mom lepp yàq ba na muy doxe lepp nga gënné ko tek lool ku ne man ñu jang ñepp ko man amna ñu bëri ci dut yewu nak bo waxé ñu ni ki moy xam waye xam nekkut bofa ak ko koo sori sëñ bi la moy xam fi bopp meen ku mën a am xam xam wutal meen meen meen mooy nàmp la nga nàmp ci sa ndey muy sa géño bàyyi ñun séeréer géño lan xam géño bàyyi sama yaay dama ne ko yaay danga may jàngal nangam ak nangam mu ne ma doom jàngaluma la seetal loolu sa yaay mi la sukk jur ba la mënta jox xam-xam ku lay war a jox xam-xam kon war ta am te ñun séeréer dangay ngay du jur sa doom te sañoo koy jox xam-xam. ndax bopp bi. dañoo bëgg leen lu ci nekk boo koy liggéey rek nga jëlee ko ci sa waajur muy sa baay geño ndax sa yaay daa am geño baay. Mhm. yow nga am sa geño baay. teqantal bi foofu la affaire bi ne bu teqantaloo nag lay waral loolu di am. damay wax nit ñi ne leen ñaan yomb na waaye amaa am xam-xam moo jafe ndax jëmmi doomu aadama da ngay ñëw jàkkaarloog moom te bi léegi ko lay ñaanal sax du moom bi léegi daa ko wax da boo ko waxee yàlla bind di nga jàkkaarloog nit muy wax ak yow te du moom keneen la mais mais sëñ bi yow bu bu nit mësaan a ñëw ngay jëflante ak ñoom ci faj nga xam ne kii est-ce que mës na la dal quoi ngay faj nit nga xam ne kii may faj nii kat lii mu ma indil nii man mënu ma ko faj yow nan ngay jëflante moom mu leer na lu yow mënoo faj loolu nan ngay jëflante loolu moom waaw laa la wax boo ma woowee rek doo ñëw ñëpp xam nañ ci man loolu ñi ma xam dëgg dégg dañ naan lépp lu mu ne waaw rek mu nga ca moom lu mu ne waaw nekkul ca moom kon yow balaa nit di ñëw fii rek fekk na na xam nga ne li ma bu fekkee lu ma mën na hmm. dama ko daan ñëwal soo ma woo téléphone daal bu la neexee ñëw booy ñëw daal jàppal ne wér nga ndax ñi ëpp ci nit ñi dañ ne sëñ Basiiru de fexeel ba lu la ne waaw la ba mu ne la waaw Ah, kon yow sa waaw sax la ñuy la ñuy lañ taamu. fexeel ba mu ne la waaw rek ci ñi ma xam laa wax nag ah, waaye waxuma ci pour. Mm-hmm. internet bi nii ku ne xool ku ne kii commentaire sama yoon nekku ah, ndax ki ma seqalu da sequñu dara rek ba tudd. Mm-hmm. ki ma ko seqal laa wax am na ñoo xam dañ naan. Mm-hmm. yal na wax waaw ba sëñ Basiir bi ne waaw rek lépp tot. nit a ngi ñëw may wax ak moom jëli ci moom di wax ak moom jëli ca moom ba muy jooy yëkkat kon. ngëm gi nga wax noonu day am am na ko ne ma suñu waa kër yëpp laa lay jébbal sama waa ndax li ma defal kenn defal ko ma ko macha doom ja ci biir doomu yaay doom ja doom moo faatu ci biir doomu doom ja wolof boobu miinoo ko de waaye wolof nga de kon ñëwal yaa ne woon maa ngi bi doom ji ci biir doom ja ah, ci biir biiru yi xanaa doom ja biiru doom ja loolu mooy baayam moo comme comme comme comme nit ku jur doom. Ah, doom ja dem hôpital yéen ñuy leen sëñ yow mi jur doom. doom ja dem hôpital di am doom doom ja faatu ca koll ba xam nga doom la ca doom doomi baay ba baayam moom xam nga doom la ci baayam ah waaye doom ja muy jur mooy baay yaayam. doom ji muy jur. waaw. moom ah, ku kuy doon yaayam. jigéen jee ëmb di waaye góor gi du ëmb waaye baay bi mooy bàyyi du am bàyyi bàyyi ki ki ki am doom di ah, daal en tout cas en tout cas wax ji wax ji kii na de man jaawaloon na ci man lool dama ci xam. kii am doom waaw baay dafa am baay. kii am doom waaw amul baay. am na baay ku ko ku ku ko jur du baayam. waaw ah ki mu ëmb di ko génnee ku ko jur du moom. waaw moom moo ko jur moom moo ko jur. waaw kay man la doom joojee nag ba mu demee ba yàlla fàtt ko ci diiru yaayam. waaw baayam mooy jóg ñëw ca man ma wutal ko gàllaaj di nga wax bi tax ma jox ko ko mu takk ko bi mu dikkee ba mu ko takkee la ne but ci ku faatu ba noppi boo bi léegi yàlla bind bi léegi ak ma gisee siñ bi fan jëm laa lay nii la nii dama ko nettalee te koo takk rek doom tubaab yi ne non mënta ne ma ne ko de bul ne noo te nga naan non nu mën a nekkee waaye mën ne te doom ji toog loo ci bëggati yow yaa def loolu yow ci kàttun suñu borom ci kàttun yàlla ci defuk yàlla ci mayug yàlla bari bokkut fii la lépp ne ci nit kii faj du toog xott moo fi nit di wax ak yow waaye kii faj nga ca gannaaw. kon yow film nii boo commencé woon faj nii da ngay beneen Serigne Bassirou. leneen mooy dox ak yow su may waxee yow sax nga xam ne li may may waxee bokkut ak bu ñu toogee di waxtaan déedéet beneen bagage lay doon mooy wax ak yow fa fa lay jëflanteeg ñu bëri moo tax néew ma du ma juum ci sama kàllaama waaye du yomb te lu ma waxee de su ko teggi teg rek ndax lu wér laay waxtu yàlla tax. te ku ko dégg xam ne àdduna taxul may wax. mën ngaa baaxee ñi lay seetaan lan nga jëflante kooku noonu nga xam ne dafa ñëwoon ngeen ngeen ngeen eh, amoon problème. dama wax loolu rek ma jox ko ko ma takk ko bu ko takkee mu am doomu jeex fas gi moom takkal rek bàyyi koog moom. ana fas bi. <coughs> bari bokkut ñu waxtaan ci. Mm-hmm. bari bokkut a ngi nii. waaw fas bi loolu la. waaw mm-hmm. fas gi damay wax ni ñi ne leen. Mm-hmm. su ngeen ko mënoon a am da ngeen koy boole sama jàmbaar gii. bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ne xam nga keroog sax xaw nañu fay dàqante waaye nag ñu ngi jéggalu xam nga léeg-léeg damay damay sori am na ñeneen ñoo xam ne dañuy bëgg a teew te yoon def defut ñu teew ci émission bi loolu moo ñu dàqoon waaye du leneen gis nga jëmm ji ngay gis bari na ñoo xam ne seeni tànk mooy metti ak seeni ndigg jigéen ñu bari faatu nañ ci seen biir ëmb te si guddi moo leen jàpp te bu amee bii du am moo tax ma ne boo amee fas gii am am am cëwri bii ci kàttu suñu borom lépp luy kaaraange ëmb am nga ko. jigéen ju ëmb. waaw ju ëmb kaaraange ëmb xam nga ëmb moom jigéen ju warul amul. ku ëmb lañ la wax. kon góor bokku ci yi fi jigéen rek. dégg nga soo amee ñaar yi dafa am solo ci yow ndax appareil bu ñu la këpp duñ gis dara nit yu guddi mën ta xam heure booy am doom tànk yuy metti ndigg metti biir buy yuuxu. ngay seere di tayal ci li ëpp na nga xam ne siti ak émati mooy indi loolu tànk yu metti nag di yëy di ruux di jam di maas comme courant su ko neexee bàyyi boroom mbagg ak ndigg la ak lépp luy tàlli ak a banku di metti kooku mooy ngelawal seytaane <coughs> bari na jigéen ñoo xam ne ñoo am ba noppi paralysé doxatuñu ndax loolu. dama ko ma lim nii. ngelaw bi moo tax. kooku tàng yaram bi day tàng jër comme safara surtout guddi ah. ku ëmbut mën na koo am bii ku ci ndiggam di metti téyel ci ndiggam la koy tax rek am ci kàttanu suñu borom rek la ko mën a amee ci Serigne ba Ndiaye xewal ci bokkul xam nga mën nga koo amee feneen waaye ni ma xamee laay waxee ndax bu ma nee ma ne maa ko am damay joom juum waaye am naa ko te wér na te ñëpp xam ne mm-hmm. tànk yu metti ndigg yu metti bari na sëriñ soo xamante ne bii nu ngi fi waaye baat bii woote ko yomb na waaye mën ko yombul te ñuy ñaan lu xam ne di tànk yu métti ak digg yu métti moom nañ ko fi docteur dama leen a wax ne du ko faj fii ba Amérique déglu leen bu baax yéen ñi Amérique yéen ñi ci état ma maay wax ak yéen ndigg yu métti tànk yu métti du ko faj foofu maa ko wax ko bëgg a du dugal dara du ko dindi day yëy day roox day jam day maas comme courant du di la gën a bañ fu waaye nekk am commentaire sama yoon ko ci waaye docteur du ko faj ci kaw suuf à part bu ñu la këpp duñ gis dara nématisme dong lañ lay wax wala ñu la autorose <coughs> wala da nga am gut opéré la nga gën a dee. incha allah <coughs> ndoxu si ci ak hémorroïde ba tey opéré ngi ci gën a dee. ndax am na ñoo xam ne bu leen opéré ñu am jafe-jafe. Mm-hmm. seen adduna am na ñi nga xam ne seen taat ci boppam mooy xat mm-hmm. suñ ko opéré seen taat bi mooy xat. ndax aw taat ku ko ne ku ko ne naa mit faj ko góom booba il faut mu wàññi raccatal yi raccatal bi ñuy raccatal suufu borom da koy wàññi nga xam ne booy dem duus day metti ndax bu réyee rek du mën a génn li may wax lu leer laa leen di wax ne waxuma leen loo xam ne damaa fobir kere teg déedéet dama leen wax lam demee te bu nekkut yow rek bul ñëw biir bi yuuxu ngay seere di tayal xel muy jaxasoo bopp bu ubbu rab àdduna nga doyal ko sëkk xalaat ba di alaaxira ñëw ci yow nga jëndoon ci kàttan suñu borom incha allah incha allah Serigne Bass ah, euh, yaa ngi wax lu am solo ah. euh, dugg na foo xamante ne nii euh, moo solo ñëpp muy wàllum ndoxum siti nga xamante ne nii daanaka kuy dox rek yaa ngi koy doxaane Serigne Bassirou keroog ñu waxtaan ci lan nga ciy waxaat tey ndax du doy te du jeex ndax wax dëgg yàlla daanaka feebar boo xamante ni daanaka moo dal ñëpp <coughs> ndoxum siti ak émérite moom mën naa ne moo mooy mairie ci wopp koom-koom bi nga doon wax noonu xaalis bi nga doon wax bu jafe bi ñu baree bari ndoxu siti ak émérite lañu yor amatuñu dara bind leen yéen ñi may waxal waxuma ak sama bopp dégg nga wax mi ndax bind leen li may wax nii yéen ñi ma koy wax ku ko bëgg a dindi na fexe ba teggi li ma wax bu amee lu mu fi teg bu ko amul nag bàyyi li ma wax mu nekk biir bi yuuxu ngay seere di tàyyal suba teel doo mën a jóg mel ni kuñ dóori yëpp mm. mooy ndoxu siti ak émérite mm. ndoxu siti ak hémorite ak bi ci biir ak bi ci biir ay ràññale la lu ci nekk na am yoon teg ko ca ba mu leer nañ ci ñi koy faj bari na ñoo xam dañ lay wax da liggéey fu ne ñu yóbbu dafa doo gis benn bunt ndax lañ lay wax ak li nekk ci yow nekk benn sarax nangam sarax nangam sarax am na yoo xam ne bu ma sañoon sarax borom a ko war a génneel boppam waaw waaw sëriñ Bass yow ci ñi génn ñi génn déedéet man kenn du ko mas a dégg ci man génnee ko sarax déedéet man lépp lu ma lay def dama naan la lii nga may jox nga jox ma ko ma def ca la ca war waaye nag kaay ma génneel la sarax moom kaay ma lekka la sa xaalis la ci li ëpp na ngeen koy jàngat nag bu baax ñaankat yi def loolu wolof kay laa wax man bokkuma ca man waxuma la nekk amut waaye dama naa wax ne la gën ñu sarax borom a ko war a joxeel boppam génnee ko teg ko ci loo xam ne am kam koy jox mu jeex takk waaye ma saraxeel la man ànduma ci man man ànduma ci laa wax loo àndul kenn boo ko defee contrôle nga sa bopp dégg nga ko ma wax la ne ñooñu biir yi yuuxu ngay seere di tayal suba teel doo mën a jóg mel ni kuñ dóori yet sa yaram bi yëpp bañ sa xool àdduna mel ni àdduna bu tukki sa xalaat bi yëpp li ëpp nga jëmee ko alaxira mënatoo nekk ak doomu aadama yi loolu ndoxu siti moo ko indi ak émori ki nga xam ne dafa dem ca wano wa bëgg a dem duus muy metti di saf comme kaani am na ñoo xam ne benn katariére waxtu ba waxtu wadal si danañ ko am duñ dem duus kooku nee naa la ndoxu siti la ba tey ak émori bi génn ma wax la ne ndoxam siti ci boppam yëg naa ne mën naa dofloo doomu aadama waaye émeri day rey day rey moog ngelawal seytaan dañuy rey liy tàng yaram jër comme safara day rey ndax tàngooru wu ëpp yow lay toog te boo ñoree faatu ah, ak ngelaw ñëpp la sonal amul comme ba léegi ndax ñuy bootu sax nga koy mu ngi leen di dal te ñun ñii ñaan xam na ni ñuy bootu sax dañ koy am kon teyoo rek moomu ko wopp la rek yàlla sànni ñu ko bëri na góor ñu manqué kattan te ndoxam siti ak émérite moo tax ba tey bari nag jigéen ñu wàccalantu moo tax doo am yéeg-yéeg ca sëy ba mel ni pétan mu nen rek boof ci nenam ne bàpp rek dara doo ko mën kon mën na loolu ci ci ci nit moo koy def ci day naan bàpp jigéen ji du mën dara du yëngatu tax du yëg sax na ñu ngi sëy ak moom mën ngaa def na ngay def ba noppi jóg dem sa yoon moom yoonam ne yëgalu ko sax yaramam dafa am ñi nga xam ne ci saf-saf ba ak yéeg yéeg ba ak neex-neex ba ak tem-tem ba ba ca war a am dara du am am na ñi nga xam ne nag day metti bu ñuy sëy ñoom comme kuy jël ndaw déglul de man damay wax loo xam ne bindal mm-hmm. yow ma mu dal bu nekku ci yow bàyyil yow ma mu dal bu nekkee ci yow dikkal foofu laay waxee waaye waaw la ak diir la déedéet ah. maak yow ñoo ko war a séq rek waaye kenn mun laa àtte sama digg ak yow ku dul maak yow ak yàlla fii laay waxee bari bokkul dégg nga ko nga xam ne yëg-yëg boobu noonu lay doxee yàllaa ko dogal doomu aadama bi ñàkk yëg-yëg ci sëy muy góor gu wacce lal ak jigéen ju wacce lal boo ne jigéen ju manqué kàttan am na ñu werante ko te day am jigéen ju manqué kàttan mooy du yëg sëy du yëg neex na ak naqari la kon kay wàcc na la góor ga cay ngar ngaree ka def yëf kay day saf neex rek mu ne cay bajantu waaye mu ngi jëm du bajantu ci lu dara néewul ah nu ngi jéggalu de tontul ah ah kenn du bajantu fu dara nekkul boo gisee pecc mu te bàyyi rek daa neex ñalay tëggal waaye bu noppee neex rek nga génn ci kon sëy dafa am lu koy neexal yéen ñaar ñëpp a koy yëg kenn ku ne am nooy def. kon ndoxum siti su ko defee affaire bi doon dara jeex na tàkk ñoo fi tasaare dëkk bi ni wërsëg koy tëj ci li ëpp di jeexal sam xel àdduna nga doyal ko sëkk àllaaxira ngay xalaat mënatoo nekk ak doomu aadama yi ci kàttan suñu borom incha allah ne maa ci aay maa am naa ci ñaan ndax boo ne yaa ci aay rek ngay fàtte yàlla waaw xam nga lépp tamit eh, yàlla la ba tey ñu delloo si ko rek mu gën a neex ñu bokk waaw dégg nga ko mm. xoolal kay am na lu may bëgg a wax dégg nga ko noonu <coughs> foofu la ne dafa am góor ñi nga xam ne suñuy tuur ndox mook jigéen a ko bokk kuy tuur ndox muy metti buy jeex di am deret mbaa ngay génnee maa niw dose yi amul jàngoro góor la bu dee góor bu dee jigéen jàngoro jigéen la moo toppi suñoo bokk ba tey waaye fu ñu ko fekk mu bàyyi borom ki nga xam ne dafa am jëkkër dafa bëgg jëkkër mu të ko am na mm-hmm. nga xam ne sëy rek la bëgg am na. bëgg soxna tamit. waaw soxna am na. Mm-hmm. tànk buy euh, loxo buy metti am na. am na lakk-lakk. moom jooni jooni. waaw lakk-lakk bi ba tey laalaguñu ko te leen ma mayoon ci waxtu jéem lakk-lakk moom yaakaar naa ne Sénégal kenn waxatu ko. ndax euh, benn waay dafa yor Touba mu ne ma sëñ ba mm-hmm. ma ne ko Mbàkke mu ne ma yoon seetaanatu la gouvernement bay waratu ma ne ko ndax la mu ne ma ni nga mel ci lakk afficace ko war naa leer. ma ne ko wax nga dëgg waaye man ma dem ci du gouvernement naan ko toppatool ma dara déedéet mooy gis ne maa ngi liggéey ci biir liggéey bi ma gis sama njëriñ ci biir liggéey bi mu ñëw boole ma ca ma nekkal ko ca waaye man sama gëm sama bopp laa def ak gëm li fii xam-xam bi nu yàlla séddee ak cër bi ma yàlla jox ma doyloo ko rek ne ca waaye fu ma fekk ko la ci kàttanu yàlla keroog mu ba ko soo moccee rek day jeex tax ci moom du am déggat bu sumee ko yaram ba lépp xonq ko cooy mën na maa teg xaalis pour ñu ngeen teg xaalis dem seeti kalak damay ñaan léegi mu wér léegi ci kàttan suñu borom lu lakk bi garaaw garaaw ndax dangar jamoo fa nekk di rey borom hmm. soo ko ñaanee nag dangar jamoo bàyyi góom ba des ba wér na waaye dangar jay maji maji foo toll doo am jàmm kooku neexut a faj dangar bi ngay njëkk waaw bopp buy metti hmm. fu ma ko fekk mu baax bëñ buy metti fi nga toog mu baax ci li ëpp ñi nga xam ne dañoo amee jabet bag jabet am na bagit noonu dañ ciy def ñaan ku am jafe-jafe këyit ca bitim réew am na xat-xat bi la waaye li ci manqué kon xam naa dañu ma ko yóotu rek ma jokkowaat ak yéen ñu seppali ko ndax ginnaaw li li duuf ci ndab li xëju ci li ngi jéggalu nag ndax su ma sañoon li may wax neex nit ñi jërëjëf xam naa ne daana léegi fa am solo mooy euh, fi nga xam ñi nga xam dañuy wut këyit euh, jafe ci ñoom ah, nga xamante ni nii ko yàlla dañoo am yenn feebar yi nga xamante ni nii dafay mel ni ay bopp yu metti wala jabet euh, wala yu demee noonu sëriñ bi macha allah kontaan nañu trop waaye damaa bëgg fii ñu am luñ ci wax. ndax euh, maa ngi ko seen depuis sànq yor ko yii ay lan la. waaw euh, jàmbaar jii de dañ koy wax béjjén. waaw lañ koy tuddee. waaye giri giri la. ñi nga xam ne ñoom dañ ne yàlla bu yàlla tas yaakaar. ñu ne ah kay yàlla na tas yaakaari yaakaari sàcc. sàcc yaakaaram ñu ne yàlla ko yàlla tas. yàlla wut si de incha allah waaw lii moom nañ ci wut si des na ci yéen ndax ndax wax dëgg yàlla jamono ji ñu nekk nii jëli bari na trop ci kër yi kon lii moom nañ ko nañ ko nañ ko wut si wasalaam fii lañ ko mën a amee ak ah, fu ma ne ndax boo dee fii rek day mel ni fii dong la am maanaam ci yow la ko mën a amee yow Serigne Bassirou déet am nañu ko mën di ñeneen dama naan bii waaw bii bii man lañ ko mën a amee ma ne waaw waaye nag ci man rek lañ mën a amee lii déedéet ñeneen nañ koy def waaye bii laa wax kenn du la jëlal daal lu tudd ci kattan suñu borom ci Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari beaucoup. jërëjëf. maa ngi ñaanal <clears throat> yéen ñi ñëw ngir bëggal askan wi jàmm rek tax ngeen a ñëw. ngeen jàpp seen koor rek lépp ànd ak moom ñëw. maa ngi leen ciy ñaanal suñu borom defal leen ay tawféex yu kabe seen i njort ndax lii ci askan wi li koy dundal ci la bokk. Mm. tawati doomu aadama yi nga dem laaj nit muy nettali. Mm. kay déglu di déglu. Mm. root ba mu doy ko jëru sax ngay laaj ka nga xam ne moo doon caméra sa yoon nekkul ca moom déedéet mm. ndax moom xam-xamam lay indi mm. nga génnee sa xam-xam mm. lépp loo bëgg a laaj laaj ma ko wax ak yow man ma daal di tontu ci lu leer nañ lépp looy jëflante ak ma nit ñu jëflante ko maa yow waaye day am ñoo xam ne coono lay doon ci ñoom te duñ ko faj ndax moom ma dañ ko waxtaan ak moom ba déggoo moom rek mu liggéey liggéeyam ci liggéeyam la nekk kon nañuy waxtaan ak ñun ñi nga xam ne ñoo séq ak yéen liggéey bi loolu dara néew ci ndax foofu rek la bu ko defee ñu tontontee ngi lu leen ñu leer ndax dañoo wax ba leer ñu door a tàmbali waaw kon yàlla nu yàlla dimbaleel boppam taxawul nu ci liggéey bi wéral ko ci barke suñu Tuubaa am naa ci yéene nan la woo directement mën a yaa ngi noonu affiché incha allah euh, fi may jeexalee xam naa ne temps bi sa jeex na deel ma kii mais lii dama koy gis nga tax yëpp maa ngi gis nga koy nga koy nga koy ah bii bii bu doon ci tubaab dansé la tudd dansé waaw ruus la de foo ko seen dee ko moytu te xaaral ba moytu teg <laughs> ndax gis naa ne tax xaaral moom dee ko moytu lañ wax. <laughs> soo ko gis ku ko yor rek moytu ko lañ wax. <laughs> yem ca. mooy danser. mooy danser moom lan la. danse rek danse kay wolof la. Ah, moytu rek. moytu rek. Ah. waaw mooy jéem ci jéem ci moom dara. mu jël rek te moytu ko rek. waaw ah. mu jeex tàkk. jërëjëf Serigne Bassirou Ndiaye xéwal. bari bokkul moom la ñu amaloon waxtaan tey ma fàttali leen ne adresse yaa ngi ñëw. bis yi bis yi may nekk si ko war a dugal. waaw waaw waaw bis yi bis yi tamit wax na wax na wax na dëgg comme moo gën a kii ma bàyyi ko euh, ci waaye adresse yi Dakar Thiès Mbour ak euh, Touba. Kaolack tamit euh, Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokkul mi ngi ci foofu yan bis ngay nekk Dakar. Dakar maa fi nek al alterné ci ngone alterné ci ngone lay nek Dakar talata alal ba ma départ ci ngone ga wuti fa dem mbuur mbuur alal ba jàll ma nekk ko mbuur hmm. ba jant fi sox ma continuer Kaolack waaw ci alxames ja alxames ja ma nek ko mbour hmm. ma nek ko dekk ba astafurlaa euh, Kaolack alxames ja ma nek ko Kaolack waaw suma jógee Kaolack hmm. parce que ko nag ca ngoonu alxames ja dugg touba samedi uh-huh. dimanche uh-huh. ajjuma samedi dimanche uh-huh. fa laa koy nekk altine ma tegaat ko Thiès ca ngoon nga ma ñëwaat fii nga ñëw fii wasalaam noonu daal loo ko jàppee kon appelant du temps baa ngi noonu euh, adresse yi di Dakar fii ci euh, poste Thiaroye wala nga ñëw Thiès yow mi nga xam yaa ngi euh, fee nga xamante ne mooy Mbour xaar fa Serigne Bassirou Ndiaye xewal bari bokkul Touba ak Kaolack yéen it euh, xaar leen Serigne Bassirou Ndiaye xewal wala ngeen woo ko ci numéro yooyu 78 140 99 08 wala 76 391 74 63 wax nañ ko sànq yow mi nga xamante rab dala sonal wala nga bëgg am soxna wala euh, am borom kër wala hémorroïde wala bayre impuissance sexuelle maanaam néew kàttan moo xam góor wala jigéen Euh, ndigul yu métti tànk yu métti jabet ndoxum siti wala bopp bi métti lakk-lakk moom moo ci aay macha allah suñu borom may na ko loolu jigéen ju wérul gis ngeen euh, fas wi nga xamante ni yoon yor na ko sànq moom tamit macha allah wala yow mi nga xam yaa ngi euh, bitim réew am jafe-jafe kayit wala loo yootu lu nekk mu tas am ay jafe-jafe Euh, daanaka doo xam lan la wala sa buntu tëju loo làmb lu nekk du doo ci jot Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokul moom moo ci euh, gaaw kon mbokk yi lii lañ la amoon tey ci waxtaan fii nga xamante ni ci Dakar euh, kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di joxaat rendez-vous incha allah ci fan yii di ak Serigne Bassirou Ndiaye xéwal bari bokul jërë ngeen